waaw maa ngi nangu ziar dañoo demoon foofu rek pour waxtaan ci campagne bi pour nu ñuy def bu recevoir ñu tamit waxtaan ak ñun ñu war a xool nu ñuy def rek pour falaat Macky Sall première tour nag loolu daal lañ demoon waxtaanee ko foofu. moo tax tey jii mu waral suñu yëngal bi ñu wane suñu bopp dugg ci biir golf bi sensibiliser ñëpp pour wax le le 24 février. nit ñi ku nekk na jël sa carte électeur ñu dem vote ji falaat Macky Sall au premier tour. waaw bu loolu weesoo tey tamit ngay amal benn caravane toujours dans le cadre politique mhm. caravane waral. rek moko waral pour sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñom waaw pour ñu téla dem rek vote 14 heures pile ñu ñu ñu sànni caravane leen jël buñ dotul miin. Ah, mais nga yaakaar sax nañ wax waye dotul bi non ñun tuñ tiit ci dara ñun yooyu tiitaluñu yooyu yëngaluñu yu ndaw yooyu yëngaluñu ñun suñu bopp lañu ñu gëm te bu soobee yàlla la le 24 février dinañ wane waat suñu bopp bu baax a baax. waa bi nag damay wax ni violence bi jaru ko liy am solo mooy ku ne yore sa carte loolu mooy wax bi ay violence di xeex dugg fii génn fii loolu yëpp amul sens li am sens mooy ku ne yor sa carte ba ci jour ba nga waaxu ndànk dem ci urne yi voté. loolu mooy dëgg mais ay xeex ak yooyu noonu ay violence bi jaru ko daal sama gis-gis. waaw kàddu gu mujj gi mooy maa ngi gërëm ñëpp gërëm ñi ma àndal ñëpp gis naa seen taxawaay rafet na vraiment kontaan naa ci ñoom trop trop bu baax a baax yal na ne yàlla defal jàmm.